suivre euh, tey nag ñu ngi fii ci parcelle euh, ci Kër Zos gannaaw ba mu bëree combat ki nga xamante ne moom mooy Ada Fass mu nekkoon journée boo xamante ne journée jàmbaar euh, production la woon mu nekk combat boo xamante ni nag démb amoon nañ njàqare yaakaarul nañ sax Zos bu bëre ndax soog bi nga xamante ne gis nañ ko fee ca bu ñi naan Zos dafa demoon entraînement def choc ñi naan Zos tamit ci scooter la yéegoon fii ñi ñuy wax ak ak yéen wax dëgg yàlla benn douleur la yor mi ngi souffrir dañ koy bàyyi nag après ñu kii ak moom tuuti ndax xam naa duñ ko fi téye ndax ni ñu koy gisee nii dafa war a dem léegi hôpital Zos ñu dem. waaw maa leen di fay di sant yàlla di santaat yàlla rek di sant samay waajur xam yàlla xare ajana di sant sama sëñ sëñ Moussa Nawel waaw. Zos préparé combat ba mu des deux jours. ñu gis ni zos ba ñu gisoon ak bi ñu gisaat tey dafa am différence zos def choc ñu ne combat bi du am après ñu gis zos ñëw ñu ne stratégie la doon def mais dafa mel ni zos dafa am blessure. stratégie amu si. Ah. fayal bant loolu. wala nga tourné stratégie amul foofu. Euh, gaa yi nii duñu ma bàyyi ma fen euh, xam nga bay combat dangay njëkkante dem jël fii butéel dem def fële gauche droite et ma gaari sama oto ma ne naa accéléré rek parce que yenn affaires yi sutóor mooy gën a gaaw voilà ci lañ benn taximaan coupé parce que démb dafa bari woon ngelaw ci géej gi euh, bu ñu coupé ma daanu gaañu ci ndigg dem seetewoo dem euh, sapeur ñoo mu jël si yóbbu ma dalal jàmm dalal jàmm def rajo gisuñ dara ñu def kii scanner defe scanner ñu ne non instant bi moom c'est la donc foo ñu transférer la hôpital Fann j'ai tous les documents et toutes les preuves mais vraiment nitu jom la parce que bi ma jógee daal jàmm transféré ma. hôpital Fann hôpital Fann maa ngi fa jógee ci guddi gi noonu si guddi gi laa lañ ma jógee dara jàmm yóbbu ma hôpital Fann hôpital Fann maa ngi fa jógee ay midi yàlla xam na loolu ay midi ba léegi nelaw ma midi waaw war a bëri ci gars woo ma met ma pression yàq journée bi xam nga vraiment nat ndogal moo ñëw man nangu ndogal li ndogal ne nangu na yàlla suñu borom moo ma ko teg euh, naa continuer waaw parce que mu jógee noonu woo sama mbokk yi nee na damay bëri ji boo yaa ngi nii boo yi taxaw sama jarbaat yi sama doomu sœur sama doomu frère yi ñoom laa nekkal complice fii ci kër gi dama ñëw booy aalu ne ma doo doo bëri ji Mohamed Diouf a ngi nii Pa Modou Ibrahima Mohamed Abdallah Taala boo yëpp famille bi yëpp kenn nii dafa découragé ne ma doo dem non gars yi neen bàyyi la ma dem bëri ji ñu ne ma yow dèjà nelawoo mm-hmm. da nga yaa ngi gëj a nelaw depuis barki démb mm-hmm. ma ne ko bàyyi la ma bëri ji. mais dépression. Euh. a bëri ji que rek nit mm-hmm. man maa bëgg sàmm sama dignité. su may liggéey damay liggéey ak plaisir du ma tricher xaw ma tricherie donc bu ma ñëwee si làmb ji ubbil ubbil bàyyi la dugg bàyyi leen rek Mohamed Mohamed Mohamed garaaw bàyyi leen Mohamed bàyyi bunt bàyyi bunt bi garaaw bàyyi noonu bàyyi noonu garaaw donc nit buy garder di di di yite di yite dafa garaaw euh, ma forcé presque vingt quatre heures nelawuma ma ñëw ci làmb ji ma egsee takk supporter faa si dóor ma barre benn fer waaw benn fer ñang baalo ñang baalo téyeen gis na ko moo ko récupéré jox ko xalifa xalifa bu CNG grand arbitre boobu parce que xalifa moo ko laaj ne ko il faut ngeen weñ bi ma def rapport parce que lii c'est grave dañ ma ko dóor ma daanu ci ëppoon mu ko dóoree dama dama mel lu ko kaaw ba dafa metti gaa yëkkati ma ma da ngay bëre ma ne suma jom ba léegi naa eggale contrat bi ci biir stade bi la CNG ñu ngi fi too sogom ba may soog a ñëw juste lañ ma dóor barre de fer bi mm-hmm. parce que barre de fer boobu su ma daloon si bët heure bi sama àdduna yàqu leen wax ne metti na daal mënoon na ma dal fenn foo xamante ne mën na ma rey wala mën na yàq sama carrière euh, moo ko nekk sama jom bëre ak benn loxo benn épaule parce que c'était très dur maa ngi nii dama ne utaal léegi ni scanner loxo bi xool lan moo ci nekk. kon ak trois trois blessures. waaw parce que nii nii nii sama conc bi il faut ma dem rajo ko xam ndigg la uh-huh. ma daanu si rond point bi ñu mbëkk rond point Malibu bi c'était flagrant parce que c'était flagrant parce que y avait du monde il paraît sax gars yi jot nañu film ba dugal ma si internet bi uh-huh. mais la vie moom la noonu voilà léegi euh, dugg guddi gi ñoom jàmbaar ñëw nañ fa mais boo xoolee seen communication yëpp mooy journée bi journée bi donc santé bi moom garaaw journée bi dañu sauvé ma ànd ak ñoom ci loolu def ko parce que vraiment dañ nekk samay nit aussi nekk ay nit yu baax peut-être euh, Papa Sow dama dem ba rus ko boobu mënuma siggi sax xool ko yàlla moo dogal loolu barke alxuraan te tey la waa la gën a ay Mansour nekk jeune frère ba pare amul problème donc boo amee façon yu di mel noonu euh, bu doon sax <laughs> décidétuma sax continuer di bëre wala dara genre yooyu exemple donc cofeel googu mu ngi sama digg ak ñoom ba léegi. mais day combat bi gis mu mhm. gis ni jàmm ak pexeem mun nañ ko joxe rek yàlla ak dogalam. Mhm. tey Zoss fi combat bi tolloon ci yow tey mu dem ba demee nii Zoss kon moom ba mu doon bëre mën naa jàpp ne moom santeem permettre ko mu bëre nga doon bëre pour sauver la amie. non j'ai les documents. ok yi. mun naa leen ko transférer wala mun leen ko j'ai les boo demee renseignement euh, dalal jàmm ah. ak fan in lay wax ni tos il est malade ab tuul pour bëre combat bi resté on naa ko parce que ça fait six mois manqué préparé dem États-Unis ñef xam ci ay situation yi doy waar sama mère gaañ sama ginnaaw et mm. donc yooyu yëpp c'est des choses qui m'a qui m'est arrivé mm. ci contrat mais waaw parce que su ma doon plainte sax contre x laay def mais actuellement j'ai mal il faut ma dem hôpital nii léegi donc imagine maa ngi am triple blessure donc gaañu na avant ma bëri di ñëw ñëw ba si stade bi gaañu bëre pare gaañu ça fait trois blessures yàlla xam na loolu billaahi wal kitaabi loolu moo ma dal nii j'ai trois blessures jàppante mais il faut ma remplir contrat bi amoon naa ngëm-ngëm ne damay daan aussi parce que gars yi dañuy wax ma ne nit bu yaram tàngee rek am lu mu def waaw góor soog woo ma insisté da nga war nii waa ji ma jàpp comme jeune frère ma ah dinaa dem bëre. respecté naa leen trop c'est des boy yu baax góor a soog garga de ñëw tamit fii c'était samay rakk lañ donc équipe bi tamit bi ñuy bi ñu ñëwee ñam deef gaa yëpp dañ ma ne mais li nu mu demee noonu ma damay bëri ci boo xoolee équipe bi d'accord uñ pour mu bëri ci waaw ma jël sama initiative parce que comme xooluñ sama santé xaalis nañ ñu xool naa def lu ñu bëgg après ma jël conséquences yi waaw. mais yaa ngi bëri ji mais defoo kon sa xel ndam ci biir géew bi. mais si nee la dama ñëw ak maladie. ok mais ku feebar ah, moom mooy jàpp mais ku feebar mënul àtt Fatima mhm. man nitu jom laa jàmbaar da koy dégg rek. nit dañ koy wax nii rek mais xamul luy jàmbaar déjà lu ñu commencé mooy bëri dóor nekk sama life ñun ñi xamee ma ko donc mënuma woon def leneen lu dul lii waaw. kon mënuñoo jàpp ne bi ñu naan amu ko dëgg la. am naa staff sax mais benn moment maa jël sama initiative yu bopp dem bëree. staff bi d'accord ñu il fallait que ma def loolu mais bàyyi ma dem hôpital parce que sama dama dama dama gaañu dama dem ñu rajo ñu xool kii bi ak kii bi ba xool te bokkul ak feebar ma indi sama daanu bi sama daanu sama ndigg la jàpp ak sama cuisse gauche loolu laa dem bëri jeex ñu dóor ma weñ gis nga mi ngi nii làmbal Fatima gis nga nga weñ bi ah, fi mu dal donc xaw ma xaw ma ndax na am hémorragie moo tax il faut ma dem xool. d'accord léegi allah yal na la yàlla may wér. après ci kàttanu yàlla ñun ñëpp ñu ñëw waxtaan ak yow kon ñu doon waxtaanee yow. waaw ñu ngi lay jaajëfal. yoon bàyyi rek yàlla wooy naa moo